jërë ngeen monsieur le ministre de la culture messieurs les ministres éminence le représentant du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké monsieur le coordonnateur de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba éminence Serigne Chérif Fanta Madi Mbacké président du projet Cher neveu Khadim Monsieur le Président du Conseil d'administration du musée Kër Balkerou, honorables guides religieux, Mesdames et Messieurs, en ce jour d'histoire et de culture, je me tiens devant vous pour célébrer un trésor inestimable, une lumière spirituelle qui continue d'illuminer notre chemin. Le legs de Cheikh Ahmadou Bamba Baké Khadim Rassoul. Je m'honore de représenter le chef de l'État, son Excellence Cheikh Macky Sall, président de la République, dont vous avez le soutien en cette cérémonie de vernissage de l'exposition sur le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba qui marque le démarrage officiel la semaine. Le Sénégal est fortement engagé par la sauvegarde de son patrimoine et s'y est attelé depuis fort longtemps en faisant inscrire ces éléments culturels sur la liste représentative de l'UNESCO et en menant des inventaires réguliers. À ce titre, il me plaît de rappeler que le dernier inventaire pilote réalisé dans le cadre du programme national d'inventaire du patrimoine culturel immatériel, a permis d'inscrire 59 éléments sur toute la première liste représentative du patrimoine culturel immatériel du Sénégal, valorisant ainsi la forte diversité culturelle nationale. Ces efforts seront poursuivis par le gouvernement en veillant à refléter toutes les facettes de notre patrimoine culturel recréé en permanence. Mesdames et messieurs, le vénérable Cheikh Ahmadou Bamba est une figure emblématique dont l'héritage transcende les frontières, le temps et l'espace. Il est une source intéressable de sagesse et de paix. Le Cheikh nous enseigne que la véritable richesse réside dans la foi, la tolérance, et la bienveillance envers autrui. Ce sont là les socles des fondations du mouridisme qui s'est imposé comme la marque sénégalaise la mieux vendue à travers le monde. Son legs riche et fécond s'épanouit comme un jardin luxuriant offrant à l'humanité une opportunité unique de transcender les divisions et de construire des ponts entre les cœurs. Le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, telle une mélodie enchanteresse, résonne dans nos âmes, rappelant la puissance de l'amour et de la compassion. Ce patrimoine favorise un imaginaire qui a définitivement triomphé des égoïsmes pour s'épanouir dans le partage et la solidarité qui fondent l'altérité religieuse et sociale au plan national et international. C'est fort conscient de la valeur inestimable du legs de Cheikh Ahmadou Bamba que le président Macky Sall a instruit le ministre de la Culture pour inscrire la mémoire iconographique de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de notre pays. En méditant sur la vie et les enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba, nous découvrons une source infinie d'inspiration. Inspirons-nous de sa vision pour bâtir un monde où la paix, la justice et la solidarité prévalent. Un monde où chaque individu est respecté pour sa diversité et où la coexistence pacifique est le leitmotiv de nos actions. Célébrons ensemble cette semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, une semaine dédiée à l'éducation, à la compréhension mutuelle et à la préservation de ce précieux héritage héritage qui nous enseigne que le, la véritable grandeur réside dans le service désintéressé envers l'humanité, dans la recherche constante de la connaissance et dans la quête inlassable de la paix intérieure. Le Magal de Touba en est une parfaite illustration. D'ailleurs, nombreux sont les acteurs qui demandent l'inscription des expressions et pratiques culturelles du Magal de tout Touba. Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je vous invite à réaffirmer notre engagement envers les valeurs universelles de Cheikh, que Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Baye Niass, Cheikh Bou Kounta, etc. ont incarné avec tant de grâce. Célébrons cette opportunité exceptionnelle de nous unir, de transcender nos différences et de bâtir un avenir religieux, radieux, basé sur l'amour la tolérance et la compréhension mutuelle. Que la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké soit le point de départ d'une ère nouvelle où son héritage continue d'illuminer nos vies et d'inspirer les générations futures. Je vous remercie. mbokku jullit yi maa ngi leen di ginnaaw bi ñu jullee bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa Serigne Touba. di wax jërëjëfate sëriñ Touba. di sant di ñaanal sëñ taxa yàlla na fi yàgg te wér maa ngi koy wax léegi sëriñ bi ma danda lii xéewal la sunu boroom bi ñuy defal ñu daje fii tey ci lii nga xam ni lu rëy la ci Sénégal moo tax président Macky sàll li nga xam ni Sénégal daf ko ñor jàmmi Sénégal dëppoog la nga xam ni moom mooy jàngale sëriñ Touba mi ne na ci gouvernement bi taxaw lépp lu ci war ñu def ko lii nag jàngale la ndax foto yi mënoon naa yàqu mënoon naa réer booboog léegi yàgg na yàlla ci mbaaxam delloosiwaat foto yi fii ci senegaal muy nekk jàngale bu rëy daa mel ni sunu boroom daf ñu ne li nga xam ni maam yi bàyyi nañ ko fi rawatina ku mel ni Serigne tuubaa ngalla bu leen ci wàcc topp leen ci loola man de jàngat boobu laa ci am mooy li nga xam ni ñoo ko moom ñii nga xam ni yàlla daf ñu leen baaxee Sëriñ Tuuba doon ci ki nga xam ni moom lañ ci gën a ràññee kon lii nga xam ni liggéey na ko war nañ koo sàmm loolu moo tax bi ma sama jarbaat xaadim seetsee ma ne ko dinaa ñëw ci vernissage bi pour barkeelu ndax semaine bi président Macky Sall ci boppam moo ñu ne semaine bi maa koy xoolal sama bopp la ci Sénégal war a wax man maa koy waxal senegal ci samdi ba danaa leen fekk fi ngeen nekk ma wax ma wax ko ci turu senegal kon dañuy néggandiku ba bës boobu rek xam naa ni message yu président mooy doon message bi nga xam ni moom moo gën a xóot gën a sori message bi dëppoog lii nga xam ni yàlla defal nañu ko tey dinañ ci barkeelu nag xaadim bii moom dinaa ko yóbbaale waaye dinaa ut yeneen juróom-ñeent bàyyi koog yéen def ko it muy barkeelu ndax ñaari mbir lii ku nekk ci ñun war na koo am kon sama salon ci ginnaaw naa ko fa def waaye dinaa fexe nag ba signature du Sëriñ Muntaxa bi di feeñ ndax signature bi rek ni ko mbàkki yu waxee léegi sëñ mbàkki yu man mi jaral na maa joxe sama jëmm ku nekk nag ak li nga toll kon may sant mbooloo mi yëpp di leen gërëm incha allah xaadim dinañ ci waxtaanaat ndax wax naa léegi ministre de la culture na ci gouvernement bi jënd lu doy pour que fépp fu musée am fépp fu am ñu def ko fa waaye it gan yi ñuy am ak mbokk yi ñuy am buñ fi ñëwee ñu won leen li Sénégal am li Sénégal war a wone lii nga xam ni njëriñ la ci Sénégal may sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf